tey ñu ci turu yàlla bi ñoo al haadi al huwa al imala wa hadiya لأنها تميل قلب المهدي إليه العدية إلا الذي أهداه الحدية والله الهادي سبحانه الذي قص من أراد من عباده بمعرفته وأكرمه بنور توحيده ويهديه إلى محاسن الأخلاق وإلى طاعته جكبر فتنجم ممشتر برك Euh, haadi ñu ngi ko jëlee ci hidaaya mooy jub hidaaya ñu ko jëlee ci imaala mooy jengal jengal walis yoonu ndëng moo tax nga gis ñu tuddee ko hadiya ndax hadiya day jengaloo xolu kay joxe hadiya ba ca kam koy jox ndax ñu bari ñu ngi fi mooy jàdduwaay rek mu bàyyi fa ñëpp jàdd dem këram jox ko hadiya ba mooy imaala yàlla na ko wal haadi ñiy jéngaloo walis yoonu njub yëpp walis yoonu ndëng jëm ci yoonu njub yëpp kooku kenn la mu yàlla yàlla ak muhammad nag ñoo bokk ismu boobu ñuy waxaat yi doy na la rek ci fatiha mu ne fatiha boo ne bismillahi rahmaani rahim mu ne tudd na sama tur nga ne alhamdulilahi rabbil alamin mu ne sant na ma nga ne rahmaani rahim mu ne gën na maa sellal gën na ma màggal nga ne maliku yawmi diin mu ne asna abdi nga ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu ne hada bayni wa bayna abdi wa li abdi ma saala lii mooy sama frontière sama jàmbi sama jàmbi lu ma ñaan ma jox ko nga ne ko ihdina siratal mustaqim teg ñu ci yoonu njub doy na ci ismulayel uh, haadi nga ne allahumma salli ala sallam il fatihi lima ughliq wal xaatimi lima sabaqa naasiril haqq bil haqq wal haadi ila siratikal mustaqim doy na ci sëkk jàngal fatiha ba ci baat boobu rek ba ci ihdina siraat nga def ko mulai haadi 20 fois wala nga boole ci liifa lam nga 51 ñaan yàlla jubal sa njaboot jubal la jubal sa njaboot deel jiital sa bopp nag ndax dëng moom heure bu ne mën naa wàcc jaamu yàlla boo jàngee fàtte ba ci yàgg naa bu yàgg na seen taxawal ci yéri na mu tax nga jàng ko 51 fois ci liifa lam nga wala nga jàng ko 20 fois ñaan yàlla jub saxal la ci njub saxal jubal say doom saxal leen ci nga jàngal salatu fatiha ba ci wala hadi la salatika mustaqim nga jàng ko 50 fois cinquante et fois wala nga jàng ko vingt fois vingt fois bi nag mag ñu bëri nañ moo gën a nga tajri ko lii fa laam nga def vingt moo gën a gàtt te mag ñu sopp nañ ko lool ndax dafay tolloog waduudu waaye boo ca defal li fa laam ngay moo tolloog al waduudu njaam yàlla mboolem mbindee bu fi gis lum jub jub lum baax baax lum maslaa yi daw daw bëri ci moom ci yàlla la jóge huwa alhaadi fi maasi xatta doom ji bi mu juddoo pour mu seex weenu yaayam haadi nga moo ca dugg siru haadi moo fa dafa siru a seex ween jaam bi mooy toog ba mu yàgg mu tuub jëm ci yàlla siru haadi moo fa nekk jaam bi dëng wala jikko ju bon mu toog xam jikko ju baax siru haadi moo fa jaam bi ñàkk dem di wuuti siru haadi moo fa jaam bi réer dem di xam يبشرها للمفن والله الذي يعدي الطفل الى ثدي امه والفرق الى التقاته تي اسم الله هادي تي لا تيوج مي مانا توجي تاي تي ننام سغ ري كوماسا فورتيزو فان لاكو جان ونهل لبناء بيتي تي اسم الله هادي تي لا يمب مانا ديبار ديبار تي ندم موسى تبخ خير كوماسا تبخ نيو بوبام بيرو ني بغاو بيرو لاني هلا سكل سوداسي تسكل سوداسي لاكو ديف بو جيبل دفعي دف كار دفعي دف كار كار مربع دفان مربع شو يتم دفان مربع شو نولا واي مربع هنا داي دوغلا انت بمك كم نبوتي خورك دفعي من نشو داسي مصدر إنه الآلة يلا دان مويته الذي خلق فصوى والذي خدر فهد يلا تجد مو بند تجيبه لم بند لم بند لو هيا تولو كيف بين نيت بفيك يا متفبر بارون يا تولو جيم منجا مو تولو badiyaa tolloo bu fekkee ne nag ci gisin la ak lu xeeb yëpp a toll mooy xalaka fa sawaay wala jël xalaka baaxa moo natt lay dal di jubal moom yàlla subhanahu wa taala huwa alhaadi ak yonentam min xeebaari huwa al anbiya moom moo jubal yonent yi waaye muhammad naman mooy njiitu yonent yooyu wa fi l haqiqa anna laa huwa alhaadi lahum ala alsinatihim yalla ngi jubal yonent yëpp ci seeni làmmiñ ci njubal ak yalla bo ci bo defé li fa la moy 51 boko jé boo muy ismu bi nak ismun bahir la turul leer ngi wa durul faqir or buñu ñu ho jara puukarewoo mo ismu hadi khawasun hadi xataa ñi ko tudd sax karaama la sama serigne si Mamadou hadi ibrahim hadi Fall ma wax jara bu ñu ci bàyyi dafa kontrol di ñëw ci bayina day xam lu si yàlla bàyyi dajale ma ñu ne waaw mom bu ñëwee yalla ngeen yaaka dama ko wara xol mu xam yalla wala dama koy jox kaaju no mu nekk xam yalla wala dama koy lo ñaar rak balaay pare mu xam yalla ñu ne ko ya mom seen mbir nu la neex nga defal ñes <laughs> ko it haadi tu do mu ngi koy tuddu sax daayiratu matabi min dalalati lbatina wa zahira wa rujoo ila laay fi sirri wala alaani ku delu ci yalla ci li feeñ ak lu nëbb rek mu la haadi yi nga ko ame amee secret ba dëgg nag mooy weeba nga multiplier ko ci bopp mu jox la 400 ngay ko def gannaaw farata bu ne nga def yaa haadi yaa haadi 400 fois wallahi na da nga dem ba boo tàllale sa loxo teg ko ci bopp ku dëng sax yàlla jubal ko ñu ngi leen ay siyaare te dafa tolloo wadóoru ñuna boko sika da nga dem ba nga xamne yu yuwaddidu lahu qulub al ibad li annahu yuwafiq ism allah al wadud al hadi yuwafiq ism allah al wadud wa yarsuq yarsuq al tahakkuma fi al bilad wa bayna nas da ngay muju nek hadi kuy ism allah hadi xale yi bugu mbolo bugu di àdduna bi yëpp top len te jang jàngaguñ talaguñ jàng te bugu mbolo ah bu fekke dem ne huti ndigal de tay jëfandikoo ismu laay hari moom da nga am ñoo jubal bu fekkee fekk nga nga am loo jublé wala mu fe dama yaakaar ne bala ngaa woote nag da ngaa war a xam loo xam ne bu ñëwee nga xamal leen ko xam njub goo xam ne boo mënee nga mën leen cee teg waaye doo ko kese mën da mën da mën da tax nit ñi topp la. kon nag ismu bii dafa am siru ku taxoo 400 yi daan farata bu ne da nga dem ba nga xam ne loo teg loxo mu jub waaye ku jàkkaarloo yow sopp la ndax ismu laay gi dajeel moo tax moom nga ji mag ñi daan ko bind ci am nañ koy bindee di ko takkal ci dëndab xale su doq xale te we éer ba muy nàmp ba ba muy fëree day gaaw a dox te day gaaw a mën a wax te bu màggee day jub te day baax bu demee ba màggee du njaalo moom daan mu ngóog turwaa ngóog ñu ngi ziyaare sang yi ñu ngi ziyaare sang yi ñu ngi ziyaare xalifa bi ak rakkam yu góor ak rakkam yu jigéen ci njabootu Baye ak imaamul akbar Cheikh Ahmad Tidiane Aline Cissé ngi ñaanal xale yi nekk fayda tidiane point com yal na yokk leer yokk barke yokk njub yokkal ma njub ci suma bopp yokkal ma ko ci suma njaboot yokkal ma ko ci képp koo xam ne aman am am laante nag man jàmm ak sutura yal na jubal ñëpp ndax tur wi dong dafa mel ni moo tax yàlla bindi jaam وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليعرفوني أي إذا عرفوني يكونوا هادين مهديين إلى سبيل الرشاد فنعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين سين سوب سين خالد سين بوك على الإمام محمد جميل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان